masin ba joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant sayxi Fàllilu jóg leen taxaw nuy sant sayxi Fàllilu guddeeg bëccëg nu jublu sayxi Fàllilu yaaro ci mboolem law lu yaw Fàllilu yaay Mustapha yaay Muntakal yaay wàlliyu géeju mbindeef ay gi neex na Mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji xàll yoonu daagul dugal tariqulaay Alaaji Fallo yaay Rasulullaay dem nga fa Makka fam nga ni lilaay Alaaji Fallu yaa juboog lilaay am nga ngëneeli yàlla hubbulaahi fam nga ngëneeli bamba hamdulaahi sariyatu aqiiqatul iimaan alaaji fallo yaay borom kéemaan sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou Bousso Dieng euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di sant yàlla bu baax a baax nag di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi te ko di ñaanal Serigne Abul Baraka ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal suñu borom yàggal fi te wéral ko di ñaanal Serigne Mamor bi nga xam ne ci ëttam la ñu ne ci bis bu màgg bii ci bis bu sell bii di Kazu Rajab bis ba nga xam ni dañ ciy daje mbooleem ku nekk ci yoonu murit daje fii ci Touba di ci fàttaliku jëmm ju baax Cheikh Mouhamadul Fadal tey nag ngeen ñëw ci ëtt bu sell bi nga xam ne mooy ëtt Serigne Mamor ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal ngir. màggal bis bi nga xamante ne Cheikh Mouhamadou Mouhamadou Fadal moo ci feeñ jamono ci nag def ko ci sunna taxaw jàng alquran ak xasida ak bernde ni nga xamante ni bi fi sëriñ bi di nekk noonu rek lañ fi nekk woon tey nag ñu nekk ak euh, jëmmam ju xalifaam bu baax bi Cheikh Mouhamadul Moustapha euh, di ko ñaanal yàlla suñu borom yàgg fi loolu te wéral ko mu ànd ak mboolem ay rakam mboolem taalibe yëpp fu nit nekk rek bàyyee ko fa ñëw ngir màggal bis bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Fadal ci la feeñ jamono jëmu ju baax jooju di ñaan yàlla nag lépp luñ fi def ci alquran ak xasida ak bernde suñu borom nang ko. tey nag euh, lenn rek la ñuy soññee ni ko Serigne Touba defe woon jës bu jës bu di wax ne tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi ziyaadatin minta limul si muazami bépp taalib boo xamante ni yàlla dogal na mu ngi fi ñëw daa nga ko fa fekk di fekk jëmu ji sell jooju ni ñu ko daan defee rek dara soppiku daa yokku jàng alquran jàng xasida euh, zikkatur ak bernde ak euh, taalibe bu nekk fàttaliku jëmm ju sell jooju nga xam nañu amoon wax dëgg yàlla taalibe yi neex nañoo àndal liggéey loolu ndax kenn koo xamante ni dikk na mu am jafe-jafe amul ni nga xam ne mu ngi ànd ak Cheikh Mahamada Moustapha ak rakam euh, ak ay rakam ci euh, dundal ko sunna ni nga xamante noonu la Serigne Touba waxe woon képp koo xam ne dikk na Touba. daanaka dañuy jiital leeral dañuy jiital leeral ci lenn ci exposition bi. nga xam ne xalaat bi mu ngi jibee ci euh, kilifa gi di sëriñ Moustapha Mbacke moom sëñ Mame Mor nga xam ne woon jox ndigal ngir ñu amal ko exposition bi nag euh, li nga xam mooy jubluwaay yu mooy ñu fexee xamle ñaari jëmm yu tedd yooyu muy sëñ Fallou ak euh, doom ji sëñ Mame Mor Mbacke luñ ci jublu nag maanaam ngir génne seen i jikko yu rafet yi nga xam ne moom la moom la ñu amee ak itam seen i jëf yi nga xam ne moom lañ jëf ci ci seen dund moo tax daanaka ñu amal exposition bi sëñ Fallou jukki nañ lenn ci ci ci dundam ci euh, gën ak àddunaam ak ak yu ci aju ak euh, fam jamono euh, mbokk gi nga xam ne fa la fa la nekk fa bokk ak itam yenn ci ay bindam yi nga xam ne ni bind na ko bind yu am solo ndaxte kenn ku ne xam na ne bindkat bu mag la woon ak itam ay jëf yi nga xam ne jëf na ko muy jëf yu mag yoo xam ne nii jëf na ko biir Touba ba tax moo ko gën a fësal ci ci yoonu murit ndaxte ku ne yoonu murit rek dana tudd Sëriñ Fàllu waaye itam ak ay seede yoo nga xam ne nii ay kilifa yu mag di borom xam-xam di kilifa diine def nañ ko ci jëmmam jooju yooyu itam amal eh, def nañ ko fi ci ci exposition bi yaatal ko fi eh, ku jëm ci sëñ sëñ Mamor itam moom itam yaatal nañ ci dundam ci juddoom ak yu demee noonu ak itam ay jëfam yi nga xam ne itam jëf na ko lu ëpp nag ci jëmee ko ci daara ndaxte kenn ku ko ku ko xam xam ne nitu daara la woon nitu alxuraan la woon. kon nag yëpp eh, gaaral nañ ko fi ak nañ naka daan naka la ko daan doxalee ak ay jëfam yi nga xam ne jëf na ko yu ràññee ko ci ci yoon wi. sëñ Moustapha moom daa taxaw taxawaayu baayam ndaxte ku ko xam ku nekk. xam ne taxaw bi nga xam ne moom sëriñ Mamor taxawoon ci yoon wi moom rek la taxawaat mu doon jàmbaar lool ndaxte ci nekkub sëriñ Mamor la jàmbaar gi euh, façon lool ba sëriñ bi seedal ko ko seedal ko mbokk mboole mbokk bi kon nag su sëñ bi wanee ginnaaw euh, bàyyi ñoog moom taxawaay boobu rek moom moom la rempli ba ma sëkk te saa su ne mi ngi xool lan mooy jëmale liggéey bi kanam lan mooy jëmale kër gi kanam mësu ko mësu mësta euh, sëggal benn yoon liggéeyu sëriñ Mamor bi saa su ne mu ngi soññ mbokki taalibe yëpp ndaxte moom dafa jël boppam boole leen ci ci taalibe yi soo waxee sax ngir ñu ànd liggéey bi nag mën a fësal liggéey eh, ki nga xam ne mooy suñu sang bu tedd ba di Cheikh Mamadou Mbacke Fallou rek suñu borom bi gën ko fee yàggal lool gën ko ne li mu yéene ci mu def ci lu kawe njortam ànd see ngërëmu sëriñ bi lépp luy liggéeylu kenn mënu ca waaye nee ni mu ko waxee ci njëlbeen bi rek foofa ak fii génn kër rek la nee na man mii sax bis bu set ma ñëw fii jóge foofa lépp lu ñu fi def lu maa koy def nee na kon bu ngeen ñëwee fii nee na mi ngi leen di jot li cant gi leen cant sëñ bi daan sant dinañ ko gërëm di ko sof ci cantam yi ak ngërëmam ñoo di ñaan yàlla aaju ju fi waaye indi rek yàlla na ko yàlla faj nee na mi ngi sedduwaat bokk gin bokk bu baax Mbàkke Kajoor. di dund ak yéen ca Kajoor. suñu digg ak yéen démb la woon ca Kajoor suñu digg ba ñu yëg si Touba. loolu bi neen loolu la ñu koy feddali bu baax a baax. di ñaan yàlla mu faj aajo yëpp. di ñaan Fallu. sëriñ bi neen xolam sedd na guy. nee na bu ñu jógee fi àgg ci liggéey ba nañ ko daan defee. ba màggal gi jàmm ak salaam. yàlla na ko yàlla àggale jërëjëf Mbacke jërëjëf yooyu ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla yàggal barke Sëriñ Touba